ibnul abdullah si ayaat ana ñu bëgg dem ay bokkam i njabootam yëpp ñëw na waaye Adja Assou Sey bu Serigne Babacar si mi ngi nii toog moom nga xam ni suñu jigéenu bopp la suñu lépp la jibi ñaay sama xol sedd na moom mi ngi nii ci Cheikh ci Ahmed yi la jóge waragul man sax ñetti fan muy sama xarit bokk ci parrain yi di sama soppe di sama lépp bàyyi lépp ñëw di di ko dalal moom it soxna Ndawa Sall euh, di leen ndokkeel bu baax a baax a baax a baax di dalal nañu ko dalal mu chef de quartier Khalidou Gadio moo yónnee enveloppe bii macha allah di ko dalal sëriñ bu leen doon dalal rek Moustapha Rassoul ñëw moom it ànd ak sunu dijaay Moustapha Mbaye ñu ñëw ànd ak soxna Yacine Diop ndax bis bi ren dañuy sargal ñaar muy yaa nday saw ak aja aama kulibali waaye bu déwénee insha allahu taala bu ko corona gi mayee ah, ah, ñu ko corona gi mayee bu déwénee dañuy sargal aja asu mii toog bu déwénee moom la fas yéenee sargal moom ak aja yaasin Jóob ndax chaque at dañuy jël ñaar sargal leen bu déwénee nag ñoom ñaar la ñuy jël sargal leen insha allahu taala ajaa assu kontaan nañu suñu xol sedd na moom sama xarit la moom njabootam gi dañu may defal teraanga ba diw yi Fatima di diwoo sax waa Njaayeen cosmétique ñoo koy jox waa Njaayeen beauté Njaayeen textile tamit ñu may jox ay tissu may sol ñaanal leen yàlla yàlla sàmm leen aja awa gi nii di bëti ajaratu ñaanal ko moom it muy sunu jarbaat di sunu rakk di sunu lépp ñaanal ko yàlla sàmm aja aja aja aja yaasin ñëw ànd ak yaayam ak ay bokkam yépp aja yaasin nag kontaan xam nga yow na lay sama xarit di sama soppe di sama wëllëre di sama lépp sama diggante ak yow yonent bi la. bu ma ko woowoon nii ma commencé wax maa ngi lay ñaanal bu ñu la sargalee nga xam ne la sargal la sargal suñu jigéen Adja Assou Seydou Serigne Babacar Sy. at ba ca toppaat nag ñu tànnaat ñaar sargal leen waaw nuyooguma dama doon dalal sëriñ bi ndax kàddu gi ci kanam la nu koy joxe mais Moustapha Rasoul Moustapha Rasoul dafa am kàddu yu mu war a joxeel Adja Yacine moom it di tàggkatu yonent bi sama nijaay Moustapha Mbaye moom dama bëgg moom it ba kilifa yi ñëw mu door a tàgg yonent bi ndax papaan yeeg seegul sëñ maam Abdou yeeg seegul sëñ Cheikh Omar yeeg seegul surtout Seydina Mouhamed bi Chérif Baba Sow yeeg seegul Chérif ay Aydara nga xam ne moom mooy borom bés bi bés bi ba muy nekk deuxième édition ba léegi wala troisième édition ñoo ko ànd muy sama xarit ñépp xam nañ ni man benn shérif laa am ndax féete mënul ñàkk mooy suma shérif préféré mooy boogaa bii toog ci fauteuil bi waaw waxoon na ma soo ma tuddee dinaa jël sama loxo taf sama gémmiñ mooy kii sol lu ñuul li shérif ñu ngi lay ziar ay dara shérif di la wàccee sa wàccuwaay nuyooguma kilifa yi nag léegi dañu bëgg Moustapha Rasoul nga ñëw nga joxe kàddu yaasin yi ba pare bégal nu ci yonent bi donte cinq minutes sëñ Omar Dior na ngi nii boo defee cinq minutes Omar Dior nu def cinq minutes ñu continuer programme bi fa ilay Amadou Wade sama doom sama lépp kontaan naa Alaaji Seydou Aan na bien fi ay bi kontaan naa Oustaz Sidi Ahmed Mbaye sa teewaay bi réer na ci man lool lool waaw gërëm Mouhamed Diouf gërëm Ahmadou Fall ñoom sëñ Babacar Sarr nga xam ne sonn na lool ci bis ñaanam ak léppam ci bés bi sëñ Babacar kontaan naa sëñ Moustapha Sarr sama xol sedd na lool El Hadj Malick Mbodj sama na waaw mu nga ak Oustaz Ousseynou Diaw ziyaar bu baax a baax ak Souleymane Hou rabbi shrah li sadri wa li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sant yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad ak góor ak kàddu yu du gudd da wax wax ju am solo da nga tant bu rafet bi indi say siège nit ñëw xaar nga fi leen lu dul tagg Seydina Muhammad ajaratu Yaasin ñi ma yónni nag ñu ne bi mu ngi jiital sang bii toog ci euh, ci tribune bi nga xam ni macha allah sëñ maam xalifa Sall am na frère boo xam ni daje woon nañu màkk ndeysaan macha allah mu defam fa teraanga ñu rëy rëy rëy waaw kon ajaratu yaasin ah, nuyoo bi dañ koy ci loxo sëñ bi rek mu jot di ko waaye yàlla moo ma nattoo fu ma téye micro balaa may nuyu kenn kilifa yi ba nopp moo leen ba nopp damay nuyu ñuy tagg yonent bi ndax ñoo bokk écurie sant yàlla bu baax julli si yonent bi soxna Yaasin si na ah góor mbir yi du yàgg nee na daf lay sant rek di la gërëm ndax guddi gu mel nii ah yàlla boole laa ku ne nga xalaat ko ci jël cër bu toll nii jox ko ci rëy na ci moom loolu moo tax mu def délégation bi si 17 heures la convoqué ñëpp danaa ko délégation bii nga defal góor fonk nga góor ça fait deux mois mu woo Alaaji Moustapha Mbaye woo ma woo ku mu am bëgg la fonk la tax na way juróom a ngi nii toog suñu yaay ji nga xam ni macha allah nooyeewul ku dul na na cheikh Saad surtout Seydina Mohamed yi këram la ñuy dal fii ci Dakar ca HLM ak suñu way jur bu góor ba ah macha allah yaasin xam nga ni man dama mëneewul sax wax man tagg yonent bi laa moom waaye wax dëgg yàlla góor a yaasin ne na tey fonk na la bég na kontaan na ci cër gi enveloppe bi nag. ni ko sama mbokk communicateur yi ñu waxe dafa nekk en état de process très avancé je pense que il va bientôt waaw ah, allah moo la ko jox góor kon xam naa ni damay barkeeli tuuti rek Yacine su ma mënoon wax lu waaye xam naa ne yonent bi moo la gënal ma tagg yonent bi moo gën ma taxaw di la gërëm wala di la sant waaye bëgg gi nga bëgg yonent bi ki la ci gënoon ñaax muy sa kër Mouhamed Samb ma ñu denc tuyaawoon yàlla na wéttali kooku yonent bi koo xam ne bu tabas ki jotee xar yi tàggkat yonent yi la koy dox jesneer yi xar tàggkat yonent yi la koy dox yaasin buy woote occupé ci téléphone bi xamal ni tàggkat yonent lay waxal yaa ngi ñoo ngi ànd ak tamit ah, sa Mamadou macha allah Fall Mamadou di tàggkat yonent bu mag jóge ba HLM macha allah di nit ku baax. nabi naa bi mu xaddamoo tant bi ana ku fi gën a bëgg Seydina Muhammad nabina nabina kullana mi mu xaddamoo gis ñi moo leen gën di gën gis ñi moo leen gën demoo سيدنا محمد محمد لما سمي ذكرنا أنوار في الكائنات تشمش في سماء سماء مؤمن صلى الله عليه وسلم وسخي لمك النبي تنقالك أي الجبين صلى الله عليه وسلم لما أيمنون رسول الله من دنيك دنيا kenn du ñu xam daal ci biir nit ñëpp def nii ñu màggal yéen ci yàlla Muhammad laama ay mu yëngu moom ينور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما كان المولى منتظما نبي مولى يوسف الدنيا وبقرات كل قد تدحى قد كانت نورا وعلى kañ ñeneen ñi maa ngi bëgg a joobe Seydina Muhammad góor ñi xam-xamoo ku fi baax ci réew ba ngi iree yaakaar baa nga ami mbooloo woy na sama turandoo Seydina السماوات سيدنا محمد دقل شيخنا الشيخ صاد اللطيف قلبي شيخ مؤمن فادل جرمان جاري بالخيار قلبي لمختار باي شيخ ثاني يا حضرام يا قلبي بصوت شيخنا الشيخ صاد قلبي فرني شيخنا الشيخ صاد والله ما في الارض والسماء وقال لي احمد الأشياء ودود ودققه بالصلاة وذاك من إكرام القضاء شخصك دجل برد تتو بارا طيب سكبار ما لدنك شيخ maami siñ saaliwoo nanga sopp baayu siñ sallaa baayu siñ saaliwoo ku sopp baayu siñ saaliwoo siñ ba ma nee na maa xam yonent bi siñ ba ma nee na bilaay ma mi yaati wala yi sa yaati mislul ibnul abdullahi si ayaat قدم كسرد سيدي موي في القلب ومن خير سلم ما يوخ كان محمد يسأله لم يعطي بما مدد وعبد لا يعطي أنا مريد جبريل ينزل برم جماعتي من سيدنا محمد وهو النبي ابن إبراهيم لا هلال ما بين سنين هنيئا لإبراهيم لا هلاله هلال فدعا نازلين جمال بين سنين سيدنا محمد هلال ربي جاء محمد فتمنى البشرى وعم نواله الجبل على قسم سواو مدم أساد تومي ويلي سيدنا محمد يا رسول الله سيدنا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأنبياء